coowal politique doon loo xam ne du mës a jeex fii ci biir réewum Sénégal jamono yi njiitu réew bi président Sall li mu bëgg mooy utal ay salaire ñii di ancien premier ministre yi comme ni ko ancien président yi di amee seen salaire ñoom ancien président yi ñu mën koo xayma si suñu koppar fukki million waxul nag ñaata la bëgg ñu di ko fay ancien premier ministres yi waaye ñu jàpp ni xaalis boobee du doon lu tuuti ci ak fàttali réewum Sénégal mi ci fukk ak benn ci ay ancien premier ministre ku ci mel ni Mohamed Boun Abdallah john ak Mame Madior Boye am nañu seen ay pension de retraite ba noppi xanaa kay Souleymane Ndéné Ndiaye Mbaye ak Aminata Touré ñoom ñett ñooñee ñoo daal doon ay cadre ci secteur privé bi ñoo xam ne amuñu ay salaire yu nit ñi mën a ràññee ki nga xam ne moo di Idrissa Seck waxuma ay waxam moom mi nga xam ne moo nekk jamono yi président conseil économique social et environnementale salaire am duma ko tudd ndax ñun ñëpp xam nañu ne mu ngi laal jamono yi lu bëree bëree bëri waaye nag li askan bi di laaj moo di ne anna lan la ñi nga xam ne ñoo di ancien premier ministre di dooyee xaalis boo xam ne dañu koy jël di leen ko may gratuitement ñu di ko yokk ci seen ay biens te sax am ñu toogee ne ñoo xam ne soxla nañu ko tey buñ leen ko joxoon dinañ ci entreprendre def ci loo xam ne dina jëmale réew bi kanam jooy chaque jour gisuñu kenn ku leen wallu ñoo daal di dëgmal question boobu jëmale ko ci ki nga xam ne moo di njiitu réew bi bu loolu weesoo itam am na beneen laaj bu samp moo di ne tey ndax avenir réew bi ancien premier ministre yi ñoo ko yor wala jeunes yooyee ñu fi tudd léegi nii amaana sax xaalis boobee bu ñu ko jëloon investir ko ci ay jumtukaay yoo xamante ne dina tax ba kenn ku ci nekk gis ci sa bopp ñu mën a projeter suñu Sénégal bi ci ab avenir avenir bo xamanteni dina meilleur ndax nak jamono yi mettit bo xamanteni fo lamb daj ko lañuy daadee dundu rew mo xamanteni ci jamono bu yàggul dara gisoon nañ fi ay jamarlo yu metti metti digënté ay askan ak ñi nga xamni ñom ñoo di tak der yi dara waralu ko won lu dul di yuxu wallu ki la wala wallu du la wallu xana kay jël di ko may soxlawu ko tay bu fekkon xel deug mi ngi ci ñoom ñoom ancien premier ministre yooyee dañoo war a bañ jël ci li ñu am séddoo ko ak askanub Sénégal jàppale leen bu baax xam ni nag réew mi ñoo ko bokk ñoo ko moom lu fi am lu nekk waruñu ko jël séddale ko séddale boo xam ne dafa daadee demee boor rangoon baadoola bu ñuy siimee cere bu xanaa kañ lay jeex fii ci biir réewum Sénégal